seen la gang. dinaa ne ko café tuuti. léegi dañu wax ci 15 millions yi ma jëmbal jaañ wax. parce que aussi euh, Sonko euh, dafa wax ni moom wowul kenn. Mhm. ñoom ñoo koy fekk si. Mhm. am na nag ñaar ci ay maire ñoom ñu génn. Mhm. ne Ousmane Sonko moo leen woo. tey ma jëmbal jaañ génn ne dañ Ousmane Sonko dafa fay yenn maire yi. 15 millions ngir ñu ñëw. fekki ko ndax hmm. lolu tamit bu ñu gisee ñaay wax yu woro yi ak ma ak jaañ wax xel lu tey tuuti waaw non xam nga nit mom bu waxe dara hmm. boo ko bëggee wéddi am nga fooy wara jaar ben dang koy attaquer directement wala nga nako dang mu tuumal nga hmm. plainte ko ngeen dem fa leen lay wax Sénégal dafa nek dëkk bo xamantene ku japp ni ya mom nit ñi yaa ngi nax sa bop maire bang ko jox mo koy waxe ci boppam te bo taxawé ba nga xamni momoko nga waron taxaw yoon ba mu taxaw ne la ya ma jox nga am problème nak loolu yàgg nañ ko fi gis du ren te du daaw kese yàgg na fee am ci politique ñu naan gars yi ngi génn petit pale di yor ay mbuus wala ay sachet di dem parce que réew mi la man sénégalais yi laay waxalaat encore une fois dañu xam ne minorité bi nekk suñu kanam nii dañuy noosee rek ñoom seen limo la ñu def di bës hmm. respecté wuñ ñu bugguñu ñu fonkuñu

ci ci législative yi. surtout ñi si bëri duñ ñu wax waxu législative. imaginer yow nga taxaw fee nekk premier ministre wala nga taxaw fee war a laaj assemblée bi. Mm-hmm. duñu wax ay wax yoo xamante ne maire moo ko war a def wala nga ñu wax ay wax yoo xamante ne yow président la. ñu mm-hmm. lu suñu yoon. Mm-hmm. te nag enjeu bi nga xamante ne moo nekk ci moo nekk ci législative yi wax naa ko encore une fois. bu fekkee da ngaa jàpp ni fay ay maire. moo la ciy génnee yaa ngi nax sa bopp ndax maire boo ci jox 15 millions bi ñu wax. du ko jox goxam. man nag waa gox bi laay waxal. kaay ma wax la nag xam nga euh, euh, euh, Diomaye dafa tas fële assemblée. est-ce que mairie tamit ñoom tiituñu après après législative su fekkee régime bi dafa am majorité. ñu dëkk bi taxu leen jóg ñu ñu kii def def kii. élection locale. non non pas locale. kii la def nu mu tudd waaye fàtte le mot kii. kii extraordinaire comment Eh, manam ñu tass ñu ñu nangu seeni seeni nombre tank dal mën nañ ah, mën nañ waaw mën nañ dem mais loolu extraordinaire xama la extraordinaire pour dem tass mairie mais légui légui man session extraordinaire légui loolu ku ko ragal ba tax nga def li nga def ku yow bu la joxé dëkk di nga ko doxale ko doxal di manam réew dañ fi wara nek manam di baña man amadou ba tax mu neex ma loolu bokk na ci day and do and ak yow mais dalay won ni carrément gënon mu bëgg mi man hmm. ah. li ma fi gis ni moy bëggo bëggo mi waaw ndax benn maire bu mel ni Barthélémy Dias biir Dakar ak li fi def ci diir bu gàtt ma fàttali leen moom mooy premier africain bu nekk maire du monde xam nga capital yu mag yi xam nga ne seen maire yi dañoo dajaloo moom mooy président bi waaw loolu premier africain bi ka nekk Barthélémy Dias la kon maanaam ay pexem may na ko loo xamante ne si nii mën na indi Sénégal lu bëree bari bari bari ñun foofu la ñuy waxee nga nekk benn maire bu nekk Maabo di ziar Aliou ëllëg mom jambar la maanaam nga nek maire bobu te yow munoo sax ut ay italien yu nek Italie nak sa maire biñ la tek ni ci say waxtan bañu ñu may la benn ambulance yow nguur gi ngay xaar ci lepp te yow loy def ko sa poste yow dañ la wara a te pexe yoy yep mo ngi ci maire yi mo ngi ci tamit ñi nga xamantene lañuy woyé ay député nak tour la bo xamantene ne buñ la bëggee woo ñu ne foog ñu jël génnee immunité parlementaire am kon du ay titre yu ndaw de titre yu mag la dañ koy dañ koy wax ah, ma daane foofu mais dañ ma daane foofu ku mel ne Barthélemy Diaz li mu mën nga ne da ko fiy teggi